أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين بوكي سيفو سن إبسيون في رجين تجلال البلس تي في نيج السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو أجيان تسن فنويري لجوتاتي في رجين آه، موي نمرة 30 بي di rafetlu lu bax top gi ngeen ñi top ci Leral Plus TV di gërëm di sant bu baax mbolam ñi seetaan émission bi ak ñi commentaire ak ñi aimé e. ak di partager e. ñu leen di ñaan ngeen di gëna partager di aimé di commenter tay na ñi commencé gént bi ki nee euh xalé bu goor bi nga xamni mom la bëgg mu nekk borom kërëm nee dafa gént muy wax ak euh, maanaam rakkam bu góor bi di wax ak yaayam ba xaw a jàppante nee na nag ci gént bi doomam bu jigéen moom yaay ji bëgg koo xettali waaye bu koy xettali il faut mu daaneel ko daal di koy pàdd mu daanu nee na moom mu ngi jooy ci gént gi nee na sax dem na bay seet waa ji nga xam ne moom la bëgg a moom la bëgg mu takk ko moom lay génnal ngir mu ñëw xeetal la ñu ne ko dem na liggéeyi kooku la muy firi euh, gis ñuy jàppante ci gént ay mbokk yu jàpp ci jàppante ci gént day tegtale na seen famille bi am na ay jafe-jafe ci seen biir ci ñàkk juboo ak ñàkk déggoo lay firi amaa nag nga gis xale bu jigéen wala doom ju pàdd yaayam wala mu dóor ko ci gént mooy doom jooja dana ko jëriñ lu bëree bari ci dundam eh, kii nee dafa gént rakkam bu ndaw bi bi mbokkal yaay nee na moom mi ngi bitim réew ñoom ñu ngi Sénégal waaye mi ngi gént mu leen diwal seen kanam yi moom ak seen yaay gént di diw sa kanam walla di diwal nit kanamam kooku day tegtale ak jàppalante ko xamne dana am ci bir fami dana la jappale yow mi ko gënt ci ay jafe-jafe yu am wala yow mi leni diw da nga leen japp jàpp da nga leen ci ay jafe-jafe ci yalla yàlla keneen dafa gënt nek seen digg kër daal di fay gis jaan bu ngande daal di koy japp neena jaan ba ma nga ngande lol neena na di koy bëss ci baat neena jaan ji daal di koy mat ci baramu digg neena na mu dem ngir wuti xeer bu ko rey mu ñëw fekk rakkam bi daal di koy rey nee na nag mu nga gis jaan bi tëdd comme nit mbagg yi mel ni nit nit daal la ko jox nee na nag papaam daan ne ko mu daan ne papaam màtt na ma koy xaar mu dem moccalu ko mu ne ko déedéet bu ko moccalu dangay jël ndox rek nga def ci gunóor euh, boo ko ci dugalee dana wér euh, yaayam naan ko neena ci gént gi mi ngi gis yaayam naan ko jox ma torche bi mel ni ku ko mere di ko ko wax ci tombu sek jaan ci gént la jaan ci gént noon la baaxul fenn boo ko reyee mooy jekku nga sa noon bu la màttee sa noon jekku na la euh, neena euh, sa papa nga gént gis ko kooku baax la yiw la sa yaay yëpp teraanga la lu baax la Euh, amaa nag ndox ci gént xéewal la gunóor moom baaxul ak mboolem insect yi rek boo ci gént rek baaxul kooku nekkul loo xam ne lu ñu sant la ci dund gi euh, amaa nag ñu lay laaj torche ci gént wala nga gis ko kooku réussite la ak dëggal say mébét. keneen dafa gént nekk ci wetu yoon bi gis ñu fa sul ben nit ben nit gis gis biñ koy suul neena après mu dem waye nag gis na fañ ko doon suul dedet ju ju fa euh, firi gént ñuy sul nit danay firi ragal de ragal go ragal de danay firi lol. gënt gis ñuy suul nit danay firi tamit euh, mbir mo xamne ne war naa jeex ta dang ko jeexal mo xam contrat ba nga am fa ngay liggéeyela wala mbir mo xamne ne ci won ta dang ko baye danay firi tamit euh, koo doon àndal seen diggante war a jeex yooyu yëpp dana ko firi amaa nag deret ci gént foo ko gisee xamal ne bàkkaar yuy génn la keneen dafa gént moom ak boroom këram maanaam pàppaay boroom këram euh, maanaam ki nga xam ne mooy seen moo nekkoon seen xaritu papa nekk seen kilifa mooy dogal ci famille ba ndax seen xarit bu wëllëre baay la woon nee na mu dem këram nag Eh, neena na fekk ko foofu daane ko jàngal ma alquran fekk boobu mi ngi yor doomam bu jigéen bi nga xam ne solul dara ci gént gi neena mi ngi nemmeeku sax ci mm, ci awra xale bu jigéen bi ay picc neena na ci loolu nag eh, seen xaritu papa bi ñëw na ak jabaram neena ba mu ñëwee jabar ji neena ko na nga muñ ndax benn say yombul ci tënk loolu la wax ci gént gi waaye nee na ba mu ne ko jàngal jàngal ma alxuraan jàng jàng jàngul dara dafa noppi gént ñu naan la jàngal ma alxuraan kooku baax na nit la koo xam ne yaakaar na ci yow lu baax yaakaar na ci yow yiw ki la koy laaj ci gént amaa nag gis sa doom bu jigéen boo xam ne solul dara kooku ci gént euh, day tegtale yiw day tegtale lu baax day tegtale fajuk aaju Euh, picc ya mbégte manam ay nouvelle yu neex lay tektalé ak ak deppalé tawfiq ak najah ci dund néna dafa gënt manam ñu lay dénk ci gënt na la muñal koku lu bax la day tektalé da nga euh, da nga quelques problèmes way da nga ci gën inshallah allah borom kërëm day faral di gënt borom lubari, lu bari muy and ak benen jigen bu am taxaway bu ñuul néna mel ni bu leen géntee day mel ni ñoom ñaar dañoo jógee ci tukki seen doom bu góor bi nekk seen ginnaaw wala beneen xale bu góor boo xam ne dafa yor taxawaayu doom bu góoram euh, nee na nag bi mu leen mujjee gis dafa mel ni gis ñuy jàdd nga xam ne buñ jàddee dox tuuti rek danañ egsi ci kër gi gént sa borom kër ànd ak xale bu jigéen beneen jigéen bu dul yow danay firi euh, firiin yu bari bokku na ca mën na firi trahison ça dépend ci situation ki ko gént rek ban situation la nekk euh, dane firi tamit jëkkër safaan bi contraire trahison muy jëkkër joo xam ne day sellal jëm ci jëkkër jabaram ci euh, ci dund gi maanaam mën nga gént sa jëkkër di ànd ak beneen jigéen fekk contraire bi lay firi mooy mbëggeel gum la bëgg ak sellal gu muy sellal sincérité bu am ci yow keneen dafa gént benn waay di ko sees mel ni dafa ñëw ngir bëggante ak moom nee na nag mu gis bi mu demee daal di xool saagam gis ci saafara ay butéelu saafara ci biir nee na xarit yi naan ko loolu de ab liggéey la ab liggéey la il faut nga def ci sobe ngir mu mën a toj gént gis liggéey wala ay saafara wala yu ni kooku muslaay lay firi amul benn danger bu ci am Muslay lay firi ci dund ak mucc ci ay liggéey ak ci ay njabar amana kula sesi melni da ngeen beugante ci gént koku baxna euh yalla mun na def mu nekk deug yalla def nga am jëkkër ju bax bala yag neena dafa nekk ci ab ben place ben jigen diko ko piqûre ci loxo nee na ba loxo bi di metti ba newi nee mu jox ko benen loxo bi ne ko boobu doy dafa metti nee mu di ko piqûre nee na nag ba mu ci kër gi ñu ne ko amna na ku lay sét nee bam duggé rek gis ki nga xamné mom lay gennal mom la bëgg mu takko ko nee ci bir gënt gi mi ngi yor parfum di parfum wu nee xalé bu goor bi mi ngi koy raay nee ci lolu euh mom ma nga sol xaftaan mom xale bu góor bi maanaam euh ñu lay piqûre bu fekkee célibataire nga da célibataire ko gént moy bala yag da nga am jëkkër gént ñu lay piqûre nay firi tamit ak mucc ci ay problème ak ay fièvre Gentu ge parfum da nay firi tag bu rafet manam ñëpp tag la waxal lu rafet ci yow da gént gis parfum tamit dana firi alal boo xam ne mi ngi jógee ci waaju tedd ci waaju baax nara tàbbi ci sa ay loxo gént gis ñu lay pikir tamit euh, dana firi euh, feebar boo xam ne nit mën na cee génn àdduna waaye gént parfum yi dana firi nekk sang boo xam ne ñëpp dañuy roy ci yow ki neen dafa gént nekk ci ab feet nee ci ab xew dégg nga nee na ma nga ànd benn waaw mu nga toog benn mag nee na bañ toogee ba waxtu julli jot mu jóg pour julli nee na ngelaw lu bari bi jàppee ba pare rek bay dugg rek ngelaw lu bari daal di upp ba dàll beneen bi sax dal di naaw benn cerex bi solo nee nit ñi di daw nee na ba kenn sax jot naa lab ci ndox ma gis na am ndox am ku ca lab nee na nag muy xettali kooku lab moom ak keneen ñu di ko xettali waaye dafa mel ni waaja dee na nee na nag euh, muy koy xetali jël gémmiñam dëpp ci gémmiñu waa ji ngir génn ndox mi ak ci bakkan bi ci loolu nag am na ndox mu jógee ci mbakkanam dugg ci gémmiñam ndox mu salte nee na mi ngi seexlu ba bi mu yeewoo sax mu ngi mel ni kuy tafli gént di jàpp gént xew baax na ndax xew mbooloo moo fay daje te mbooloo baax na àdduna la lu baax la euh, amaa nag gént euh, ngelaw lu bari gént di jàpp kooku dilaalatu xayrin wa amnin minal mawla maanaam yiw buy ñëw la ak sécurité bu jógee suñ boroom te tegta la tamit tuub bu dëgg goo xam ne tuub nga ko wala danga ko tuub amaana gént ngelaw kooku baaxul kooku ay tiitaange yuy ñëw la ay musiba la ay balaa la ndox mu salte ci gént kooku baaxul ay la ay ay problème la ay jafe-jafe la nit ku lab ci gént baaxul nit kookee dana am ay problème dana nekk ci ay xat-xat boo ko xettalee mooy danga ko génne ci xat-xat yi gént gis nit ñuy daw mbooloo muy daw kooku baaxul ki neen dafa gént nekk ci euh, nekk Dakar ci benn place bu siiw ñu ne place bi daal place bu ñu naan feccee la te ku siiw moo ko moom nee na daal place bi xaw na ko jox place de l'obélisque nee na nag ci gént gis na fa ay gannaaw kër ay cabinet nee na nag mu ngay wër ca place ba di lekk dara ci biir gannaaw kër yi ba mu yàgg xelam xaw a tey gis na benn jigéen boo xam ne ci gént gi xamu ko waaye bëggante na ak moom ba dem seen kër waaye ba mu demee gis na ay verre nee sax place boobu mu nekkoon ay verre moo ko wër waaye gis na ay verre ci buntu kër gi daal di tiim buntu kër gi buntu kër gi féete ko suuf topp nag ci gént gi gis na boppam daal di tëdd ci mbedd mi sol benn kiloot nee na ba mu yeewoo xëy jigéen gi ñëw na laaj ko xaalis dégg nga ngir jëndal am lum jëndal rakam mu daal di koy jox weccet ngént nekk ci place bu siiw kooku lu baax la kooku bayra la euh, lu baax la luy ñëw amaa nag gént gis ay gannaaw kër kooku alal la ju bari alal ju bari la gént di lekk tamit xéewal la yor ñam di lekk ci gént xéewal la sa xel di tee ci gént nag mooy xéewal goo xam ne xëy na euh, léeg-léeg jafe-jafe du ca ñàkk nee na gis jigéen goo xam ne koo xamul la ci gént gis jigen ci koku kooku àdduna la yiw la réussite la euh, nga bëggante ak mom ci gënt koku lu bax la dem seen kër ngir dugg fa gis buntu, gis buntu ci gënt moy ay buntu yu ko bunti wërsëg bunti alal bunti lu baax euh, amaa nag euh, sol kilo ci gënt koku ay secret yu wuññeeku la manam ay secret yo xam bëggo won mu mu euh te dana feñ loy neub dal bañ mu feñ loolu lay firi amana jigen gi laaj la xaal nga jox ko wéccet koku baxul wéccet ci problem ay problème la ay feebar la amana kon bu fekkee amna jigen goy bëggantek euh, na nga sétat bu bax fa ngay dugg keneen dafa gënt jënd ben auto bu bees tak bu rafet gënt tamit am avion day euh, manam ci gënt gi tamit gis na ay gannaaw kër sa gënt gi yëpp xéewal la gënt am auto yiw aduna la réussite la mën na nekk tamit soxna gént avion ak kawe la ak nekk kilifa nekk sang nekk am réussite ci àdduna gént ay ginnaaw kër alal la nee na moom dafa gént di xeex gént di xeex kooku lu baax la njëriñ la boo xam ne dana jóge ci nit ñi ñëw ci yow bu fekkee ña ngay xeex duñ say mbokk kii neen dafa gént ci seen kër ay bandi ñëw fa nee na waa kër gi yëpp daw dem ci bi biñ jàkkaarloog nee na mu ñëw yaayam daane ko am na lu xew euh, ndax moo tax bul dugg ci kër gi ndax ay bandi ñoom ñoo fa dugg mu daane ko xaala rek xaala xaara ma yot dem jël sama jaase bi nee na néegam sàkket la moom demee fa ko daan roof fekk ko fa mu daal ah ñii de xaaral ma bàyyi leen ndax mënumaa xeex ak ñoom ak loxoy neen ah, ay bandi ci gént kooku feebar la euh, feebar la bu dugg ci kër bànn yu dugg ci kër feebar la danay firi tamit malakul mawti malaka bi jël ruux yi waaw nee na ay bànn ci kër day fii ku tukki woon war a ñibbisi maanaam nga gis bànn dugg ci kër bu amoon ku fa tukki mën na am bu ñibbisi balaa yàgg wala am ku fa dugg si ngir labat jigéen ngir takk ko hakaza danay firi lu ni mel amaa nag jaasi ci génn sécurité la kaaraange la nga seet sa jaasi gisoo ko mooy kaaraange gi ngay wut dëgg-dëgg amagoo ko moo xam ci wàllu am-am ci wàllu lépp gis sa yaa ci gént kooku teraanga àdduna la lu baax la barke la. nee na dafa jóge ci ab dëkk boo xam ne dafa demoon ngir ñaan ci gént nee na ba ñu ñëw nag mi ngi war ay moto moom ak ay moroomam ñu rawante moom mu raw leen ñoom ñëpp waaye ba mu leen rawee dafa jàdd ci ab xur. dégg nga daal di moto bi daal daanu ci ndox mi daal di fay mu yeewu rawante ci gént baax na nga raw baax na mooy danga raw say moroom amaan nag nga jàdd yoon bi mooy yoon ba nga awoon ba raw leen dana am benn jamono ci jamono yi danga ko wàcc ba ñoom mën nañ la jiituwaat sa moto fay ci gént baaxul gént moto ci gént mooy def loo xam ne maanaam di jël ay décision yoo xam ne doo calculer lala ca mëna fekk mu fay ci gént tamit baaxul mën na firi tamit lu baax najaax comme waruwaay la danay firi réussite waaye réussite boo xam dana dak, nee na beneen gént gént na euh, am ko ko da gént bi foofu la yemoon waaye géntaat na am ko ko dimbale ba moto bi tàkkaat mooy sa yoon ba danga ko jëlaat dafa gént manam, seen kër dëkkandoo yi euh, dégg nga mu daal di daanu ànd ak boolu ceeb xam naa gay la sant wala faal gént daanu xam nga ceeb ci gént ceeb bu ñor kooku yiw la xéewal la lu baax la waaye nag daanu ci gént kooku toroxtaane guy ñëw la gannaaw tedd nga maanaam danga tedd waaye gannaaw ga maanaam tedd nga goo xam ne la ciy topp mooy ngay suufewaat rawatina nag kon xéewal goo xam ne kon dana jóge ci say loxo kenen dafa gënt tol tolu kanja mu nek fa di 8 ànd ak way euh bo xamne euh manam kilifa la euh, pa la dal neena muy set nak ye ya ci dëj ak ye ya ci dejul neena bu bëgge def lool rek waji daani ko déedéet jëlu ngay def lool ndax yoy yeb baxna na la joggi gënt nek ci tol bu nat ay kanja yu nat koku xewal la yiw lu bax la kii neen dafa gént ki muy génnal ki mu doon génnal bu njëkk euh, maanaam dafa gis benn xale bu góor boo xam ne mu ngi bokk ci famem jikkoom doy ko diineem doy ko mu bëgg nag rêver toujours kookooy kookee nekk borom këram euh, ci loolu nag yàlla jamono dogal na mu gis keneen bay génn kooku génnul ak waaye ci loolu nee saa bu tëddee rekk kii lay gént mooy mbokk bi euh, mu jaaxal ko te gént na tamit mbokk moomu mu bëgg mu nekk boroom këram daal di takk beneen jabar nee na moom tamit mu gént sëy ak beneen góor jaraloon na ko sax ba def ci listixaar ba mu defee listixaar la mu gént mooy euh, waa ji nga xam ne moom la bëgg mu nekk boroom këram la gént mu jàpp ci loxoom yóbbu ko ci yaayam waaw soxna si waajooju nga xam ne moom ngay faral di gént te nga bëgg mu nekk sa boroom kër kooku mooy sa jëkkër ndax liñ la wax woon ci listixaar bi leer na moom mi jàpp ci sa loxo ba yóbbu la ci yaayam mooy sa boroom kër bu la takkee maanaam sa njiglaay la njiglaayam la moom ci la listixaar bi wan amaa bi nga génte ki nga xam ni moom ngay génnal actuellement mu ñëw ngir ñaan si la kooku tamit baax na gént ñu di la ñaan si jabar mo xam ki lay ñaan ci xam nga ko wala xamoko ki ngay génn la wala keneen day la ne bala yàgg yàlla na mën na la may jëkkër ju baax ju yiw te jëkkër ju baax jooju ju yiw jooju mën na nekk moom mi la ñaan si mën na nekk tamit sa mbokk bi nga bëgg ñoom ñaar ñëpp baax nañ waaye kee moo gën nag mooy ki kiñ la won ci xaar bi dafa gént nekk ci di julli ànd ak mbooloo nee na xam na ci ñett ñaar ñi féete ko ndeyjoor kenn ki féete ko càmmoñ waaye li ko ci jaaxal mooy ñoom ñett ñooñu ña ngay foo ca julli ga nee na ci biir julli gi mi ngi julli waaye mi ngi métti lu ci xolam foo gi ñuy foyee julli bu mu mu leen yedd ngay gént di julli farata ba mu pare kooku day tegtale góorgóorlu góor góorgóorlu ci bàyyi lépp lu yàlla tere ak góor lu gooy góorgóorlu di def lépp lu mu dégle gént di waar ay nit di leen yedd ngir ñu bàyyi di foye diine kooku day day tegtale ne yàlla dina def ci yow njub goo xam ne da nga jubal ay doomu aadama nee na ci gént gi gis na ay jigéen yoo xam ne ña nga toog ci ab di maquillé di sañse mu na ngeen ma warlul na ngeen ma garantil ne sama saak bii ma leen abal dara du ci wàññeeku euh, saak ci gént wërsëg wuy ñëw la ay jigéen ñoo xam ne ña ngay sañse ci gént kooku baax lu baax la waaw maanaam day firi naylul muraad maanaam ñooñe bu fekkee ñoo xam la bu fekkee am na lu ñuy lijjanti danañ ko am yow mi ko gént tamit àdduna la buy ñëw ci yow gént jigéen àdduna la lu baax la bu fekkee jigéen ju ëmb moo gént di makki yewu kooku day tegtal dana am doom ji jigéen bu fekkee nag ëppal na ca maquillage bi mooy doom ji jigéen jooju ko wow xol lay doon bu fekkee dafa gént di makki yewu ànd ak mbégte doom bu góor lay am kon maquillage ci gént yiw la baax na nga gént ko yow ku góor ki gis kuy maquillé wu baax na ku jigéen ki tamit gént ko baax na nee na ci loolu gis na mbooloo ay mag ñoo xam ne ñu ngi mel ni ñu jóge ci ak takk gis ay mbooloo ci gént baax na àdduna la am am ay càkkuteef la waaye bu fekkoon gis nga takk gi gis ak takk ci gént tamit baax na gis ak takk ci gént danay firi nekk sang ci sa biir famille bu fekkee yow lañ doon may jabar bu fekkee keneen la tamit yiw la ndax mbooloo ma fa daje àdduna la neen dafa gént nekk nekk ak benn kilifa nee na ko xam ne na mel ci dund bi melu ko ci gént ga ndax ma nga sol benn yére benn t-shirt nee na ña ngay waxtaan ba julli jot tisbaar daa téléphone am daal di nodd nee na mu dem tànqal ndox kilifa ngir mu sangu nekk kilifa ci gént kooku lu baax la bayra la nekk kilifa ci gént bu la fekkoon ci ay xat-xat ci génn bu la fekkoon nga feebar da wér bu la fekkoon ngay lijjanti dara xamal ne da nga jot ci na mu gën a yombee ak na mu gën a barkeelee amaa di liggéeyal kilifa ci gént bu fekkee kookay nitu yàlla la kooku mooy danga nga jëriñu ci moom kilifa googu wala ci mel ni moom kilifa gu mel ni moom Nang ko gisee nak mu simple ci gént gi euh ah, manam amul ben danger bu ci nek keneen dafa gént gis ben jigen bu xess nee ma solul dara nena ma ngay xol awra ku jigen xol awra ku jigen ci gént moy fajuk aajo lay firi nga duggal sa loxo ci fajuk aajo lay firi kon lu bax la keneen dafa gént seeram bi nga xamne moko moo ko féete la gis ci gént mu tok ci sen diggu kër nee nag sœur bi ci bopam mom mo gënt sœur bi mo gënt tok ci digg kër gi ba mu yàgg rek mu gis am ko tijji buntu kër gi muy mom te mom nekk fi dafa tukki nee na bi mu buntu kër gi mu ne ko la def fi mu daan ne ko ah dama ñew ngir defal len surprise gënt gis ku ku joggé ci tukki ci gënt koku zawalul xam mi wala xusna la kooku dem ak ay problème la ak ay njàqare ci dund bi kon lu baax la foo géntee rek gis ku jógee ci tukki kon xamal na ay problème yoo xam ne yuy dañ la loolu la fi woon ci seen émission firi gént tey ci numéro 30 bi di jéggalu bu baax a baax jël nañ ku nekk ci yow benn gént am na gént yu ñu laalul incha allah yooyu dimanche danañ ci ñëw incha allah bu neexee yàlla di leen baalu xaq di leen baal xaq di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.